muy le problème des inondations à Ngiraneen ku ne xam na ni Ngiraneen comme ni Touba nekkee un pays dans un pays mais Ngiraneen est devenu un village dans un village parce que Ngiraneen est un très grand village ndax boo xoolee yàlla quartier de Ngiraneen muy quartier Mam Astawalo dirigé par Serigne Moustapha Mbacké le délégué de quartier mais yàlla quartier Serigne Mourtala dirigé par Serigne Cheikh Diouf Serigne Cheikh Diop le quartier Ndioufène ak quartier sëñ Fallou Jumaada loolu yëpp doon quartier yu mag yoo xam ne dañu nekk ci dëkk bi tey bu ñu demee ba foofu ndox ma sonal ñu sañ nañu demande ni nañ ñu jàppale la tax nit ñi di wax xëy na fañ ko bëggoon a def muy ab canal d'après information yi ñu amoon ba doon ci def ay wax pour ñu bañ ko def dama jàpp ni foofu marché lañ fa prévoiroon te l'état du Sénégal jël nay responsabilité pour ñu àggali marché bi mais comme jël na ko pour ñu àggali ko bu ñu sañoon accès yi nga xamante ni tey dëkk ba daf ko am pour nit ñi mën di dugg ak di génn accès yooyu ñu mën ñu ko defaral ba ndox mi bu ñëwee ñu mën a xool nuñ ko évacuer. am na ci ñoo xam ne sax dem nañ ñoom c'est des habitants du di quartier ñoom jël nañ seeni responsabilité ni même ñoom bu ñu leen joxoon ay terrain dédommager leen danañ mën a dem dëkki feneen pour nit ñi ci des mën a am jàmm loolu acte citoyen acte de citoyenneté la ndax plus de 66 chefs de famille. génn seeni kër ngir ndox mi te nous sommes à moins de douze mois encore à de dix mois encore de livernage ndax jeex na mais day ñëwaat léegi ñu tàmbali ko pour que ñu mën a xam nan la ñuy def pour sauver askan boobu muy waa quartier Mboubeen quartier Sëñ Mourtada quartier Ngiraaneen ci grande mosquée bi dem na ba jumaa ja amatuñu sax fu nit ñi toog pour julli pour jaamu yàlla te loolu dama jàpp ni bokkoon na ci li tax sëriñ bi sañc Touba mu ñuy jaamu yàlla kon loolu ñu ngi tàllal loxo l'état du Sénégal jaar ko ci gouverneur am ci préfet sous préfet ak le maire de la ville pour que ñu mën a ñëw très rapidement sauver les populations de Nguiranéne génne leen ci ndox mi lii la ñu bëgg lii mooy suñu problème